Seexu Bamba yaa di nga mat nga ñu ndey te doy yaa ma jaral ma jógoon di la way tey faggulu lewalewu di la jox ba géwal bu mag bi ma doon yomb naa di way ci keneen yaa ma duy ba may walangaan tàbbi naa ci yow paccax mbambulan nga nga wal sab liggéeya dal sama xel fàttiwu ci waa Sénégal jàmmi mi yaa nu ko jox Mbàkke bala yaa di janeer xar nga baax ta xoti nga leer gay na yaay du bukki njuur fu la seen ci àll bi yox am nga fulla kenn yëbu la am nga jom kenn bëñu la jum nga koccu kenn sukku la kenn gisul ci yow lu larax yow yaa fi wuutu mbar mi nga daa ci sey xasida yaa nu ki bidaa yéng ñëpp kenn du ñu nax yow yaa di di ñoom jamu fal xadimu rasulu bégal kenn manti laa ayubal raaya waa ngi yow la ko jox yàlla moo rafaatala koon yaa ko am kenn amu ko jokku naa ci yow suñu ko loo ma teg ma nangu ko sax yaa ma sëf kenn sëfuma yaa ma am kenn amuma bàyyi naa ñépp ba ma loo ma teg ma nangu ko sax Seexu Bamba rek a ma ñor la bi diine mooy sama mbër ci moom diraasa ko far tawlu naaj ku béy ba nga tex dundalaat nga tër bi nga yor ndaw ñi jàng ni ak toj na àll yëpp aw sasam bëggul ku ko lépp daa daje ci moom Sëriñ Tuubaa waa danoo bari jom mel ni moom ku ko am wéeru waay la du nii xëbb ma capitaine la kenn du ko gër yàlla buur bi mooy ki ko far mbër yu ndaw yi mbër yu ndaw yi képp la tër mbër mu mag ma bal la ko sa waaju koy fexeel na ko waaj mbër mu mag la kenn du ko ñaaj am fi te bari leer ay du ca wax ji ko war yar yar na ak ñi ñi la ma wax yar darajaal tey siyaar tey addiyaal di sukkal di raama naka jël sag njaboot di jébbale sax soñu naa ku nekk na jóg jox mbiram sëriñ bi fi mag wiiru waayi laa may la léppam a jot musta jaar ci ak gone sax jaajëfal ko war na ku ne gur ñi jigéen ñi damani war na mag te war na dama buñ ko sagganeeti torox taxawlu naa fii ba beneen yoon ma del si andi yeneen canta ngërëm ba ñu naan kan la kii ci mag ñi la sax sant yàlla laay tëjee kon julli waat ci ngeen gi yoneen ñaanalaat sëriñ bi fi man jàmmi yàlla yàlla na fi sax